la woo xam ni nag jullit bi waxtu wu xëyee war naa jël waxi borom bi subhaanahu wa taala di fa dakkir fa inna dikra tanfaul muminin del fàttalee ndax fàttali dafay jariñ way gëm ñi soo xëyee war ngaa fàttali sa bopp yeewaat sa bopp xam ni yaa ngi ci weer wu màgg weer woo xam ni lépp loo si def ci ay ngëneel ci lu baax doyut bu fekkee ni it dangay wax ñu lay dégg sa yitt yëpp war nga koy joyal di ko jotal jëmale ko ci fàttali jullit ñi ci weer wi ak yi ngëneelam ndax doomu aadama sun boroom subhaanahu wa ko mooñaale fàtte si njëlbinu weer wi man nay saxal ak jaamu yàlla di sonn waaye bu demee bakkanam miin ko ay cëram miin ko mel na ni nam ko doon joxee àq day daal des kon sunu soññee tey dañ koy jëmale rek ci lan mooy weer wi ngir jullit bi gën a yeesalaat pas-pasam ak farloom danoo jële ci Abu Hurayra mu wax ni yonent bi alayhi salaatu salaam wax na ni sama xeet jox nañ ko juróomi yëf juróomi yëf yoo xam ni musuñu koo jox weneen xeet bu bokkut ak moom juróomi mbir yooyee bu njëkk moom mooy nee na xeetu gémmiñu aji woor moo gën a teey fasun boroom ci xetu misk mbokk yi suñ doon misaal misk mën na noo wax ni mën na noo jël gëtt gi gën a neex ci ñun gën a cher lool ci kaw suuf gën a foor lool ci kaw suuf xet gu mel noonee ku ko raw xeetu gi mu ñu aji woor moo gën a teey fa borom ci xet ko ñu tudd kon loolu mel na ni jullit bi bu wooree am na martaba boo xam ni keneen ku bokkut moom amu ko bi moom mooy yonent bi alayhi salaatu wax na ni jullit bi su wooree malaaka yi dundeñ di ko jéggul boroom su xëyee di ko jégglu boroom di ko jégglu boroom ba keroog muy dox te mbokk yi ku nekk xam na ni ab jaam yii saa du ñàkk ay rëcc rëcc yoo xam ne ci digganteem boroom la ba yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon na ni dee leen jégglu seen boroom dee leen jégglu seen boroom dee leen seen boroom daal di wax ni man de waxtu wu ma xëyee dinaa jégglu sama boroom lu toll ci téeméer yoon téeméer yoon boobu dasee namm lim bu bari waaye euh, mën na ni moom sax amul benn njuumte wala benn bàkkaar boo xam ne da ko jéggaloo borom waaye loolu rek ak soññee la kon jullit bi su wooree su xëyee malaaka yi dañ koy jéggalul borom di ko jéggalul boromam ba keroog muy dox seytaane ku nekk xam na ni sonal na lool ab jullit ndax sukkoon ak saytaane jullit bi aljanaam xaw na ko mën a garanti ci ndimbalul borom subhaanahu wa taala waaye yonent bi alayhi salaatu salaam wax na juróom yooyu yee ñu jox soo xeet ñetteel bi moom mooy seytaane waxtu woon duggee weeru koor dañ koy jéngal jullit bi nga xam ni duutu amati aw yoon walla pexe yu jub ci jullit bi kon jullit bi waxtu bu defee njuumte na xoolaat boppam mooy kan xam ni suñ borom moom kam ko boole loon mu koy yàqal ay jëfam téye na ko jéng na ko ba duutu yëg seet si moom bokk na ci juróom mbir yooyu yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax na ni bu weeru koor ñëwee aljana dañ koy taaral aljana dañ koy taaral ci mboolem anam yépp bu ko defee aljana di wax boroom subhaanahu wa di ko laaj taar bii lan moo ko waral suñ boroom xamal ko ni ko sama jaam ñi nga xamante ni ñu baax lan ñu yiw lan te ñi nga xam ni daanan woor weeru koor moo tax ñu taaral la nii nga xam ni aljana ñaanam day yàkkamti sax jaamu borom subhaanahu wa taala daal ñëw ci moom ngir lan ngir xeetu taarin woowu ak nin ko waajale ngir jëmmi ñi nga xam ni danoo woor yonent bi alayhi salaatu salaam daan wax ni daan bégal ay saxaabaam di wax ni leen weeru koor yegsi na weeru koor yegsi na yéen samay saxaaba weeru koor yegsi na li wax ni weer na woo xamante si nii léppam yërmande la léppam barke la léppam aw yiw danoo nekk la jële ci Amash mu jële ci Xaysama ñoom mu wax ni ñoom daanal wax ni min ramadan ila ramadan wal xaj ila alxaj waljumua ila aljumua walsalaat ila salaat kafaaratun lima baynahunna ñuy wax ni kat ramadaan ba ramadaan ñëwaat weeru koor ba weeru koor di ñëwaat aj màkk ba aj màkk di ñëwaat julli julli waxtu yu juróom ba julli waxtu yu juróom ñëwaat nee na jaam bi su ko taxawoo nam waroo sunu boroom dana ko kafaaraal faral ko mboolem ay bakkaaram yi nga xamante ni defe na ko waaye nag ci kaw jullit bi jaam bi di wattandiku bakkaar yu mag yi danoo jële ci Omar ibnul Xataab radiyallahu anhu mu wax ni bu ramadaan duggee ñëwee ñoom day daal wax ni weer wi nga xam ni moo ni laabal yegg si na ñoom ñëpp dina am mbégte weer wi laabal seeni xol weer wi laabal seeni cër yegg si na daan woor weeru koor ci ak bëccëgam su guddee nga taxawal naafile comme ni mu ware nee na kat moo nga saraxe ci yoonu yàlla ñoo yam maanaam saraxe ci yoonu yàlla tuyaaba ji na mu rëyee la sa suñ boroom euh, dige mooy dundal nit ci yoonu yàlla wala dundal gu man doon rek la sa suñ boroom dige neen tuyaaba joojee moo ki def lool ci ramadaan ñoo yem moo tax xaddis bu a ngi nii man saama ramadaana imaanan waxtisaaban xufira lahu maa taqaddama min zanbihi képp koo xam ni gëm na ni ramadaana ngi nii woor ko ngir sàkk tuyaaba def léppam te yàlla tax def na ko jéggal ay bàkkaaram yu jëkk ba tey ñu jële ci ab xaddiis ci Abu Hurayra wax ni suñ boroom dafa wax ni bépp yiw bu doomu aadama bi def danañ ko ko fulal ba juróom-ñaar téeméeri ful bu dee benn dañ koy ful di ko ful ba mat juróom-ñaar téeméer waaye suñ borom ni illa sow ba mu des koor nee na koor suñ borom wax na ni koor man maa koy sax fayal sama bopp mbokk yi képp koo xam ni sa boroom moo lay fayal boppam kon mel na ni fay gu duun a ngi noonu fay gu kawee ngi noonu fay gu diis gu foor a ngi noonu kon jullit bi war naa fexe ba suñ borom di ko fayal boppam waaye nag ci kaw man saama i man man saama ramadaan imaanan waxti saabaan mu gëm am ngëm yàlla gu mat sëkk gëm ni lii sunu borom la koy defal boole sellal ko sellal gu ma sëkk ndax suñ jotaay bee waxoon na waxoon na ni alxasanul basri dafa wax ni sunu borom am na ay jaam yoo xam ne yu am xel lan ba nu xeloo jëfu nan ba nu jëfee sellal nan te sellal googu lépp suñu borom a kon jaam bi lépp lu muy jëf sellal ga ak yéen ñu rafet na say jiitu bu xëyee war nay fàttali boppam ni kat mu ngi ci weer woo xam ne mooy ngën di weer yi bépp jëf boo xam ni jëf na ko ci suñu borom dana ko ci fay ay fay yoo xam ni moom suñu borom moo koy fayal boppam fi ni daanele ali ibnu abi taalib radiallahu dafa wax ni seydna omar fi mu jëlee salaatu tarawih lu tax xikma bi tax mu bokk ci maanaam walla mu taxawal ko mu sos ko ba mu déggee yonent bi alayhi wax wax ji nee na daa dégg ab xaddis boo xam ni yonent bi alayhi salaatu salaam daf koo wax euh, xaddis boobu yonent bi dafa wax ni suñ boroom am na ab bërëb ci fii dend ak xaras béréb boo xam ni dañ koy wooyee xadiratul quds xadiratul quds lañ koy wooyee nee na béréb bi mu ngi bàyyeekoo ci nuur ci leer malaaka yu baree baree bari ñoo fa nekk yoo xam ni kenn xamut seenub lim ku may suñ boroom malaaka yoo xam ni seenub jaamu yàlla amul benn waxtu boo xam ni day dog waaye bu weeru koor dikkee guddi gi weeru koor dañuy ñaan seen boroom ñoom malaaka yooyee daldi wàcc ci suuf ñuy julli ànd ak doomu adama yi di julli di ànd ak doomu adama yi nee na ba Seydina Omar déggee xaddisu xaddis bii nga xam ne yonent bi alayhi moo ko wax la daal def yitte ci taxawal salat tarawih kon mbokk yi naafila gi ñuy def lu mat a la lu mat a bàyyi ndax béréb bii nga xam ne moom lañ tuddee xadiratul quds nga xam ni malaaka yu bari ñoo fa nekk te kenn xamul seen lim ku may suñu borom seenu jaamu yàlla du dog benn yoon bu weeru koor dikkee guddi gu jot dañuy wàcc ànd ak waa suuf di julli di julli ba julli mat ñu daal delluwaat neen Seydina Omar bi mu déggee lii la daal taxawal salaat tarawih kon naka mook ñi nga xam ne dañuy taxaw ba guddi gi jeex takk takk takk lépp ñu jox ko seen borom kon euh, nan yokkaat pas-pas yi yokkaat yéene yu sell yi yéene yu kawe yi fu ñu di fàttali suñu borom ni suñu bopp bokk di fàttali suñu bopp di bàyyi xel suñu borom xam ne ñu ngi ci weeru màgg weeru ngëneel weer boo xamante si nii léppam aw yiw la ñu ngi jégalu bu baax a baax nag ci kàddu gi mel na ni am soj na xaw a gaar yàlla suñu borom defal dégg ak topp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. أفضل الخلق وأكبرهم في الدارين حظا مغفورا حظا مغفورا صلى الله عليه وعلى آله الذين سعوا سعيا رابحا وأصحابه الذين وأصحابه الذين أنشأوا عملا صالحا أما بعد فيا عباد الله أعملوا من شهركم هذا جميع الأوقات بما تيسر من الصلاة والقراءة والذكر وأنواع القربات فتسبيحة واحدة في رمضان afdalu min min alfi tasbihatin fi ma siwaahum min al azman wa aksiru istighfaara min dunubikum wa adkuru llaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum wa suunu qurbata siyaami wa suunu qurbata siyaami ma yukaddiru min safiha aw yamudu ala xasanati mahwiha fa innahu kama yudaafu fi hada ash-shahri thawaabul xasanaat كذلك يضاعف فيه جزاء السيئات اللهم قابلنا اللهم قابل سيئاتنا بالإحسان وعاملنا بما أنت أهله يا رحيم يا رحمن يغفر الله لنا ولكم الحمد لله الذي جعل الجنة دار إقامة لمن اتقى ربه وخاف مقامه وبوأ للمتقين غرفا وقصورا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أفضل الخلق وأكبرهم في الدارين حظا موفورا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله في السر والعلانية ولا تشغلنكم عن التقوى هذه الدار الفانية وتأهبوا للقاء الشهر الوارد والو... وتأهبوا للقاء الشهر الوارد الوافد بال... الوافد باليمن والخير والبركة وفيه قال رسول وفيه قال رسول لصحبه جاءكم المطهر الجنة تفتح في لياله وأيامه والحور تتزين للمعتني بصيامه وقيامه وفي الحديث إذا دخل شهر رمضان أمر الله الملائكة أن يكفوا عن التسبيح ويستغفروا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم جعلني الله وإياكم من الفائزين برحمته المخلصين فيه من عذابه ونقمته ووفقنا للقيام بمراعاة حدود هذا الشهر والقيام بحرمته وأنالنا ولجميع المسلمين الحظ الوافر من مغفرته ورحمته يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين